waaw tey dañoo def assemblée générale euh, maison des éleveurs euh, Thiès Ouest nga xam ne fii mooy sama baas war a waxtaan ak ñoom tey ñu defal leen information sensibilisation ci li nga xamante ne moom mooy libéré éleveur wax leen importance bi mu am mais aussi tamit ñaar samay mbakk mbokk nañu gën a organiser wu mais aussi ñu gën a nekk ay professionnels yoo xam ne dañu leen di naw ci seen liggéey ci seen doxalin ak ci seen comportement mais aussi ñu nekk ay éleveurs yoo xam ne vraiment éleveurs yu responsable lañ. livret des éleveurs lu muy jëriñ. waaw livret d'éleveur mooy identification de l'éleveur boo xamante ne bi dafay def son activité au niveau euh, ci ci élevage pour que tey aussi dañoo bëgg éleveurs yi tamit ñu ànd ak jamono parce que passé nañu tey aussi tamit foo xamante ne fii dangay nekk lii ci làmmiñ rek. maanaam ñu professionnaliser leen. waaw ñu professionnaliser leen mais ñu gën leen a tey ba nga xam ne xam nañu. nan la ñuy identifier seen bopp mais surtout aussi que ñi nga xam ne dañuy jëflante ak ay banque ak ay partenaires ak ñeneen ñooñu aussi ñu xam loo xamante ne lii dinañu leen ko mën a ràññee parce que livret d'éleveur bi aussi tamit dafa am koo xamante ne ki moom rek moo am compétence pour mun ko certifier mooy les instances techniques de l'élevage euh, privé wala public mmh. livret des éleveurs comme ni nga ko waxee tey gis nañ ne eh, jër eh, eh, maanaam yarkatu jur yaa ngi fi jaaykatu soow yaa ngi fi hmm. ñooñu tey à partir de livre ba mën nañoo dem ci banque yu la ba leen xaalis waaw xam nga loolu moo tax ne ñu bëgg leen a organiser parce que boo seetee tey ay jigéen ñuy jaay soow ay góor ñoo xamante ni ñu aussi dañu leen di wooye ay jula mais aussi ay boucher mais ay éleveurs yoo xamante ni ñu aussi dañoo yore seen nag kon ñooñu bu ñu àndeek ñoom dañu leen a war a organiser jéem a seet naka la ñuy mën a def bi ñu ànd ak jamono moo tax fi mu ne ñu commencé leen vraiment xamal livret éleveur bi moom mooy lan voilà